mbokki internetu seen acti tv ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax nag di leen wax ni dal leen ak jàmm tey nag di alxamis fukki fan ak juróom-ñett ci weerum août atum 2022 dañuy ñëw ak yéen ci di gën a fës ci xibaar yi xibaar yi dinañu ko door ak ñaar fukk ak juróom-ñeent liir yi yu seeni waajur bàyyi foofee ca morgub hôpital Dantec ginnaaw ba administration hospitalière bu hôpital boobe joxe ndigal ñu denc cinquante néew yu nekk kon ci mborgu bile di xamle ni liir yooyee nag ñenn ci ñoom ñàkk mooy moo leen ba woon ca morgu boobee ndax seen ip waaju seen loxo jotul seen ginnaaw ñenn ci ñoom nag seeni waaju ñu leen fa bàyyi ba ñàkk ci seeni bakkan ginnaaw ba ñu juddoo ànd ak lii ñuy woowee malformation Stanislav nag la lii di Interpol teg loxo fii ci Ndakaaru ginnaaw fukki at ak benn ñu koy wër moom nag nekkoon ga Dramé gannaaw ga mu nekk ci diggante bi di Gambie ak Sénégal laata muy def ay pexem ba dugg ci réewup Sénégal Stanislav nag bokk na ci ñii di Interpol di wër li ñu koy toppee moo di jaayub arme rayub nit ak sàcc fële ca UASG ñu gën koo xam ci université Assane Seck de Ziguinchor le vigile yu nekk ca porte centrale ba jàppee asuwaay bu yor ab sac bu def lii di yàmba doon ko jéem a dugal ci biir université boobee autorité rectorale ba gannaaw ba la ñu xamle ni nag ki def jëf ji ab militaire buy civil civil la doon def jëf ju bon boobee foofee ca bu IASZ kawteef la gannaaw ba journal bi amaloon ab reportage jëmale ko ci lii di lu ñuy wax inceste fësal ko tey jii ci journal bi ay xale yoo xam ne ñoom ak seeni yaay ñoo bokk baay ñenn ñi nag seen rakk wala seeni magub yaay ñoo leen a juru xale yi nag ñoom ci ab viol lañu daal di juddu te seeni famille daal koy ndëpp ndëppal njiitu serviteur yi di Pape Djibril Fall ginnaaw ba mu fësalee ni àndul ak état bi tamit nag demul fekk ci coalition bi di yee wàllu Sénégal def tey ji ab ji xam ne rek Sénégal moo ko ñor ak liggéeyal askan wi ginnaaw loolu lay yëkkati ay kàddu jëmale ko ci njiitu réew mi di Macky Sall ci tëj gi mu tëj hôpital yi moom nag ci ay waxu Pape Djibril Déthié Fall mi ngi fësal tey jii nii ci conférence boobee nee na képp ku tëj ab hôpital dina tëji li di nga xam ne moo di armeer xibaar yi nag dinañ ko ndar képpe ak coow foofee ca biir APR ci diggante Cheikh ak ministre bi di mataax Ba gannaaw nag ñoom ñaar ñi coow deflante sax jëflante ak demal indil jot jotoon na amoo ci ñoom ñaar seen diggante ba sax nag ginnaaw tey jii coow bu ñu amaloon kii di Awa Jimi Diouf di bras droit ci Cheikh Kanté yóbbu na ci yoon kii di Birane Ba di rakk ci Matar Ba ba tax na tak yoon dina ci àddu mbokk yi nag tey leen leen indi ci li gën a fës yi di leen wax ni laata loolu woy leen di abonné te bu leen fàtte appuyé wu ci cloche bi pour di mën a am suñu ay notification fii la woon seen chaîne YouTube SENactu bi di leen wax ni à la prochaine ci yeneen information